président dëgg la biir police bi ñëpp yamunu mapamtu wàkko si biir police bi ñëpp yamunu waaye exception bi règle bi règle lay dëggal ndayu criminel yi mooy ki

rawatina li fi xew démb mbokki senegal yu ngi leen di masawu leen masawu bu baax ci li fi xew démb ndax lu tiis la ci réewum Sénégal réew mu mel ni Sénégal lu tiis la ci xolu kenn ko nekk ci yéen sénégalais yi ak foo munti bokk ci diine walla ci waaso wala ci dëkkuwaay li xew démb gàcce la ci Sénégal àdduna bi yëpp di ñu seetaan lii de lañ leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel warul woon sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma laa procureur di ci def réquisitoire ba juge d'instruction di ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bi waru woon yegg foofu yëpp waxuñu woon loolu parce que dañoo jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dee def bu dee def nañu dara yoon bañ ñu war a topp déedéet waxuñu ko foofu ndax li ñu gëm ñun ak li ñuy dund mooy li nga xam ne jàngal nañu ko ci diine bi yonent bi alayhi salaam waxee ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka su noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man loolu laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu gi ay feni neen la dossier boobu waru woon sax ñu koy yëkkati rawatina nag mu yegg fii ba lu mat daanaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci lii lañ doon bañal senegal li xew démb defe naa ak sénégalais bu ne fi mu toog rus na ni ma leen ko doon bañalee nag noonu la ko Macky Sall bëgg la leen ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yëpp ma baamu ko weesuwul loxo makki sal ba waxee nag dañ naan moom dañu wax mu singali Macky Sall waaye Macky Sall mooy wax procureur defal mu def loolu est-ce que sénégalais xam nañu Macky Sall mooy sant procureur jaare ko ci Ismaïla Madior Fall mu def mu ne ko bàyyil mu ba kon bi procureur Bassirou Guèye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay ñaawteef ba ñëpp gis ko te loolu umpul Macky Sall mu encouragé ko ci ne ko demal parce que boobu jag gisul leneen lu dul sama adversaire politique bi ma gën a sonnal bi ma gën a jaaxal am naa fu ma ko téye loolu indi woon fi lim fi andi woon diggante février ak mars 2021 Sénégal yëpp génn ne ko àndu ñoo ko li ngay def ci dossier bi ñaaw na salte na te teguwul ci dëgg ndax bu ñaawoon te salte te tegu ci dëgg yoon def li mu war a def rek ñu foogal ni bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañu war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba matt faw rek mbir mu dagg mu nekk ci loolu ku ne woon Sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw Macky Sall dina jëlaat dossier bi andi ndax lii lépp weesuwul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dikk ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bi ñoo xam maa xam Diallo def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow sooy instruire dossier ba nga koy instruire yëpp mosuñu laa andil preuve boo mën a téye te looloo xew démb ñàkk preuve boobu ba Sénégal gis ko ñu dem nag ba démb ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem indi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem gendarmerie kenn gisu ko bi ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarti ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jële waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga te yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaata ñaata yoon la woo Ousmane Sonko ci justice ci lu tegul ci yoon ñu xam ni procureur moom mooy programme te procureur mooy Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall mooy Macky Sall ñu ne nag citoyen du négocier ay conditions yu mu demee man négocier wu ma conditions yu ma demee justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a teg su dee du yoon duma ko def man négocier wu ma de ndax doo nekk ci dëgg ba pare di négocier niñ ma bëgg a ah di di tëj sama koñ di terroriser sama njaboot di toj samay oto. di ma gaañ fileeg looloo ngi fi du ma dem uyu ji kooku du négociation donte nag am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la la bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak nun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne leen il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun a dem di ñëw saa ñu koy teg lañu koy teg ñoom nag ñu jàpp ni man maa doon négocier man négocier wu ma de man li ma nekk dama koo gëm nekk ci dëgg ku ma ëpp doole di ma soo may rey di ma rey ci dëgg waaye négocier wu ma kon ni ñu ko programmé ci fan yii yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp